Thank you. أعوذ بالله السميع من كل شيطان رجيم ومن شيطان رجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ak digloo ak digloo mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyu bu sell bu mag bu tedd bu kawe bu jóge ci sunu buntu Serigne Touba Cheikh Dia Seck Ndom Bamba jaar ci jëwriñam ji di Serigne Cheikh Fatou Seck Dia wàcc ci mbooleem mbooloo mi muy ay kàddu yoo xam ne làmboo na ay cant làmboo na ay ñaan waaye làmboo ay soññee bala may dem ci kàddu yi nag dama leen di jéggulu yéen mbooloo mépp mbaxana mi ngeen gis sama bopp tàmm leen ko ci jëlaay murid surtout ko toog ci kanamu kilifaam waaye dañ ci am ndigal waaye ñoom nit ñëpp xam ngeen ne man mbaxana du sama mbir man damay sol mbaxana te mbaxana itam ci bàmba ji la bokk waaye nag ak taal bi day am fu mu ko ci génnee kon su ngeen gisee mu sukk ci sama kanamu kilifa sama kanamu jëwriñ ngeen gis mbaxana ci sama bopp daa am lu ne ci biir bopp bi kilifa gi jox ñu ndigal ñu sol ko loolu ñu ngi leen ko jégalu leen ñëpp li muy nekk nekk ndigal nag dana leen ko jégalu bu ko defee Cheikh Diagne Seck Gëm Bamba mi ngi leen di mu yéen ñëpp kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant bi koor gi jub see la ma boolee jëwri jii di sa Cheikh Fatim ne ma moom laa jiite seen kanam nekkuma fi moo fi nekk lu mu leen digal na ngeen ko def lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi na ngeen ànd ak moom liggéey bi lépp te la ngeen ci def dara na ngeen ko ko wax lu mu ci war a yëg mu yëg ci lu mu ci war a yokk mu yokk ci lu mu ci war a wàññi mu wàññi ko ci réunion ko njëkk a def Cheikh Diop nii fekke woon na ko di ñëw nañu si Cheikh Fadil ba noppee ci réunion ba dama ko woo téléphone def téléphone mille mille livre wax ko réunion bi yëpp moom suñu Cheikh Fadil kàddu yi soññee yam ca teg laaj na ñu leeral ko mooy dafa wax ne sas woowu sëñ bi toog bi bu ko benn taalibe woon ak digloo dafa wax ne sas woowu sëñ bi toog bi bu ko benn taalibe woon ndax sëriñ Tuubaa wër te xam naqari jamono ci ñun mhm. ndax ku nu teggil julli teggil la ko war yaakaar naa alali àdduna wër la koo yàqal kon man sax damaa xeeb li nga xam ne moom la sëñ bi sase war naa sasal boobu loolee réunion bi mooy li ci gën a neex si ñu jaar bi ma ko ne si ceefat bi la jóge la ne ma booy soñee na nga jiital loolu ndax jëw yi noonu rek lay mel yaakaar naa kàddu soññee yi ñëpp dégg ngeen ko ba ngeen ko déggee jëfe ngeen ko ndax wax dëgg yàlla lu ci bari yemb na ñu dellu ko wax programme liggéey bi yëpp itam mu xamal ma ne ah yéen de suñu jëwriñ ngeen ci yàgg nañoo ànd liggéey kon ni leen si ñu jaar wóoloo noonu laa leen wóoloo fu ngeen ma seetloo rek ko waral waaye bu doon doon ndigalam fële laay nekk ci ginnaaw ndax liggéey moom lépp moo ko yor moom si Cheikh Fatou doon jëwriñ ju bari nag doon jëwriñ ju doylu doon jëwriñ ju maandu ju tegu ci aw yoon ca ni mu tege waxtu bu nekk. ji bi ngeen gis ñu am sa si ko ci kër gi da ko neex waaye boo ko sooboon dara ji moo koy nga daaj yoon ndax si ngir jàll wóor ci lépp. te seenu juboo ñun ba ñu juboo ñun ñangoon ca daara ñu doon ànd di boole seen bopp di boole seen i ngor di boole seen i xalaat ba di sëñ am bi kii di sëñ Cheikh Fallou ngor googee boolewaat leen ba suñu jàll wóolu ko wóolu ay jikko teg ko ci sunu kanam kon ngor googee rek ba léegi looloo fi ne mu tàmmee loolu ci dara jël ndax wax naa noonu ak sëñ mu wóolu la noonu soo dee dégg sëñ Sam wala ngay dégg sëñ Cheikh da koo neex waaye su ko neexoon moom loolu rek dafa laaj ñu leeral bi mu dikkee tey jii man sax daf ma ñu bëggoon mu toog fii sëriñ bi daan toog waaye mu ne ma sëñ Sam bi demul fenn mu ngi fee Espagne di faju dañuy liggéey lool na mel ni mi ngi ci bi mu mel ni ñun dañoo ñëw di ko toog di ko defal lenn bi moom ma ne ko ba tey dina jox ndigal dina tere kon kenn ku ne ci ñun nan nan ñamal suñu bopp taalibe bi yii ñëw di siyaare moo doon kàddu soññee yu am doole yi ma dugg nag ndax man ci tàll rek laay wax ah ginnaaw bu loolu ci li may ñëw mooy lu ñor sëñ yu jàlloo te waxaale woon ko ca ñëw ma te taal bu nekk war koo déglu te di ko dégg sëñ Cheikh Anta Dia ñëw na ci ak Moussa Deye ñëw na ci ñu njëkk a jël kàddu ku ci nekk ñëw nga ci waaye dafa ñor sëñ yu jàll na léegi la ma sëñ Cheikh Marie Seck Diall wax kàddu yu am solo daa daa mel ni sax daa yëg ni sëñ Diallo loolu dafa mën a naa ci wax ndax sëñ mooy sëñ sëñ Thierno mooy sëñ Diallo dafa wax ne ma sëñ bi nan def saaru benn une minute de silence xool suñu bopp xool ñun ñooy ñan ak ki ñuy fekk fii ak ñaar ñi ñuy liggéeyloo ak li ñuy liggéeyloo lan la mooy lan ñu xam suñu bopp ba pare xam ñun ñi ñuy liggéeyloo ak li tax ñu ñuy liggéeyloo sëñ bi loolu message très fort lu am solo kon nag mbokk yi fooy toog di dégg sunu kàddu te bokk ci rijaal ji di wéy ndigal na nga xam ne si rijaal gëm Bàmba li wax ci ndogu ren yii mooy turu yàlla bi da koo ñor lool am na kuréel yoo xam ne ñooy yanu ndogu yi di ko yóbbu ñooñee buñ leen tànnee baagal tànn ñuy jiitu ci kanam nga xam ne du ëpp fukki nit ak juróom wala du ko mat ku koo xam ne tànn la ca ñooñu sëñ Rijaal ne lii sa yi mooy nga dugg ci sa kër ba te yëkkatoo yàlla te ànd yar ak teggin bañ a ruwe kenn ñu dekk ci kër gi léegi loolu leen si ngir jaar digal ñi nga xam ne nag dëkkuñu ci kër gi ba noppi wàññi ko ñëw di ay gone ndaw liggéey ay mag ñu fas yéene dikk ruube ko loolee nag ñun suñu bakkan lañ ci teg ndigal yi moom mooy maanaam képp koo xam ne gis na ku bokkul ci kër gi ba noppi ñëw bi wala mu bëgg noo yàqal loolee def suñu bakkan loolu fu mu waay tool di mu na ko dégg xam ne duut na ko nangu dootul ñu nangu moom daaw danañ sant am di yoom Mbàkke bu baax a baax def na ci liggéey am solo en boobu lañ ko toppee ba topp Magal Kourou Diagne ñu am lu doon jëflante ak moom waaye dañ ko am na ko murid yu yoon waa noonu rek ndax kenn ku ci nekk ci liggéey liggéey ngay am cicatrice waaw soldat soldat boo xaree wu kenn waaye ren jii nga xam ne moom am di jóg du ci du ci wéet rijal yëpp fab nan liggéey bi dañ cee teg sunu bakkan sunu yar lañ ci teg sunu tegg sunu taal sunu pas-pas dun noonu dara yàqu ñaari ma nga guddi yante woon ci njëriñ bàyyi ko seen doom ñu di ko ñu di ba ci ñun dund mu dara yàqal na ko waaw kon nag da nga koy mu sell ñu togg ko mu sell ñu yóbbu ko fan nga ko yóbbuloo mu sel ñu dem ci yar ak dellu si waat ci ay tegin kon ku ku soroon mbuum àddina bëgg dugg ci liggéey bi te mooy su ma demee naa senat wala naa naa leneen mbuum àddina ko ci liggéey bi liggéey bi du àddina du àddina loolu duñ ko liggéey bi daal fa fa ko suñu yàlla teg suñu tubaab teg ko foofu lan ko teg képp koo xam ne nekkoo ca foofu teel a génn ci liggéey bi bañ noo tooñ ku ñu ci tooñ lu mu dajee yow la nga xam ne yaa ko yóbbu sa bopp ma leen bëgg a wax naa leen suñu jëw yi ni mu matee ak ni ko suñu jaar wóoloo wax leen message bi ko suñu jaar yoon ni suñu jaar nag daa defaat beneen message koor boo xam ne commencé un bu jaar yëpp loolu nag batti na bu sayer beneen bi tax beneen message koor boo xam ne un bu dama bëgg ngeen xam ne li mu téye lu dëgër la li mu téye lu wóor la message foofu ba ci sama jëmm ji la ko la ko wane. wallaahi asim barkeb Sëriñ Tuuba nëgëri war na fekk ma ni ma nekk bàqee barkeb Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul oto 406 407 buy daw lu bëri dal ci ab camion ba ba oto ba ma xoñoo ajjuma ma toog fii di wax ak yéen. góor waay mago waaw ndax mu feese tooru oto ba boo ko gisee bu dee di génne ca la ko gëm Cheikh bi ñaan na ko daal sëñ bi defuma ko lool ndax suñu sàmm bi toog dina ko yi daal di ma ko toggal kon Cheikh bi yàlla fi yàgg waaye rakam yàlla fi yàgg dafa daan ko sëñ waaw du bàyyi ma rek moo yore ànd ñu jox si Cheikh waaw bismillah kon ñu jox si ñëw ji nañ naa sa déglu waaw xol bu feesee tur waaw xol bu feesee tur di leen nuyu ci turu sëriñ bi suñuy kàddu lépp ci kàddu sëriñ bi rek lañ koy jéem a tënk donte ne man ko. Mm-hmm. muy cant bi ak gërëm bi ak soññee bi cant gi ci lépp wala li ñu weesu. Mm-hmm. maanaam baat bi dafa ñëw dafa dee waaw waaw dafa dee waaw ama jot ama jot waaw sëriñ bi rek kàddu gi baat bi dafa dee ñu jot suñu ko baat bi. Euh, waxtu bi dafa jot waxtu bi dafa jot nee nañ liggéey ba àgg na te nee nañ liggéey bi àgg na te li ngeen fi wax doy na sa te nee nañ li ñu fi wax doy na kon liñ ciy doole du bari kon suñu Cheikh Fatim ne liñ fiy doole du bari mooy kàddu yu soññee rek mooy kàddu yu soññee rek muy li sëriñ ba bëgg mooy la sëriñ yàlla bëgg ñu fas yéenee sax ñu fas yéenee sax waxuma ñu nekk ci tey ñu wax mu nekk ci tey bañ cee nekk ëllëg bañ cee nekk ba lëggee dañ ciy sax dak dañ ciy sax dak ni borom Touba diglee woon ni borom Touba diglee woon wa niyatul xayri wa niyatul xayri wa xawlul xayri wa xawlul xayri wa fi'lul xayri wa fi'lul xayri nga yéene lu baax. nga yéene lu baax. di wax lu baax. di wax lu baax. di jëf lu baax. di jëf lu baax. wamulaa samatul xëy na sax ca. wamulaa samatul xëy na sax ca. waaw ñu xa fàttaliku it. ñu fàttaliku it. lu tax suñu borom. lu tax suñu borom andi na fii bind na. ak lu tax mu yónni yónnate bi sallallahu alayhi wasallam. ak lu tax mu yónni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ak lu tax suñu borom Tuubaa wàcc fii. ak lu tax borom Tuubaa Xaadim Sëriñ Wayu wàcc soo jant. suñu borom li mu tax mu bind nu mooy nu jaamu ko. suñu borom tax mu bind nu mooy nu jaamu ko. kon Abdullahi rek la ñu mën a doon. kon Abdullahi rek la ñu mën a doon. waaw li mu fi yónnee yónnate bi. li mu fi yónnee yónnate bi sallallahu alayhi wasallam. moo nekk ay jullit. moo nekk ay jullit. te am makaari bu lax la tam makaarimul axlaaq loolee la sëriñ bi jël aw sasam nag loolee la sëriñ bi jël aw sasam def ko ci aw nitam def ko ci nitam defar mag ña defar mag ña kenn ku ci nekk mu tofal la mbooloo ñoo ne defaru nañ ñoo ne defaru nañ ku leen kuñ gërëm defaru kuñ gërëm defaru moom mii nag moom mii nag yàlla dafa dogal mu bokk muy muy muy tuut tànk yàlla dafa dogal mu dogal muy tuut tànk ba noppi tey dox dox yu ma tey nag dox yu dox yu ma mat sëkkri yàlla mat sëkkri yàlla dañ koy ñaanal mu yàgg fi lool ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool wér lool wér lool bàggale yéenam bàggale yéenam ak naalam ak naalam maam Cheikh Ridial naaloon ak lu Cheikh waaw bu ko li ma ciy li pas-pas li pas-pas yi. fekk li jaayante yi. sellal. ndax buñ ko sellalu ndax buñ ko sellalu da ngay jëf ba noppi yàq jëf ba loolu amul njëriñ niñ koy sellale nag niñ koy sellale mooy adabul mardiyatu al adabul mardiya mooy mooy moo di taalu rek tegg ñu gërëm rek moo di taalu rek moo di taalu moo di taalu rek ci gàttal alxuraan jàngale na ko alxuraan jàngale na ko yonent bi jàngale na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale na ko sëriñ bi jàngale na ko sëriñ bi jàngale na ko ñoom ñi ñoom lañ lay ñoom ñi maam bi Cheikh Amdi suñu jafaat yow suñu jafaat suñu jafaat rek Cheikh Yàlla jàngal nañu ndaxte waaw lii di rafetal lii di rafetal ak ak jéggale ak ak jéggale ak muñ ak muñ lu ci nekk suñu borom wax lu ci nekk suñu borom wax na ne anta inna allaha ma sabirin nee na inna allaha ma sabirin nee na allah yuhibbul muhsinin nee na allah yuhibbul muhsinin kon nañ jéem a nag dimbali sëriñ bi kon nañ jéem a dimbali sëriñ bi ci muñ ci muñ ak dal ak dal te xam ne lii ñuy sàkku te xam ne lii ñuy sàkku bu ànd ak loolee bu ànd ak muñ ak dal duñ ko mën a am woon yasubillah te bëgg nañ ko am na benn euh, euh, leçon bu ñu mas a jàng am na benn leçon boo xam dañ ko mas a jàng dañ ko xam ne am nañu koy xam jalaay wax jaxfar ñu bi doon wax jaxfar ab jaamam da ko doon defal buy jàpp ab jaamam da ko doon defal buy jàpp ci satala mer mu xool mer jaam ba fàttali ko aay ci jaam ba fàttali ko benn aay ci alxuraan ni ko yaa mawlaaya ni ko ni wal aafiina ani naas wal aafiina ani naas ak ñuy jéggale ak ñuy jéggal ci nit ñi wallaahu yuhibbul muhsinin wallaahu yuhibbul muhsinin yàlla bëgg na way rafetal yàlla bëgg na way rafetal yi ne wal kaasimiina al xaysa da ko ne kasabtu xaysi ba ba mu ko ne wal kaasimiina al xaysa da ko ne kasabtu xaysi mu ne ko wal aafiina ani naas mu ne ko afuutu anka mu ne ko wal aafiina ani naas mu ne ko afuutu anka mu ne ko wallaahu yuhibbul muhsinin ka mu ne ko wallaahu yuhibbul muhsinin waaw mu ne ko ishab anta mu ne ko ishab barke sëñ bi waaw daal ko jéggal ndeysaan kon nañu làmboo loolu kon nañu làmboo loolu ci liggéey bi bu ñu dem duñ jar jëruñ ñu duñu soññi. bu ñu dem jëruñ ñuy soññi bu ñu soññi. Ah. kon ñooy kan. day doon kon ñooy kan li sëñ Cheikh la sëñ bi rek sëñ Cheikh bëggee kon ñooy kan noonu. ni sëñ bi bëgg nañ ci jéem sax. nañ sax bëgg sëñ li ñuy wut ci sëñ ñu am ko njariñoo. di la jël sëñ bi ci leen di ñaanal leen. di la loolu war nañ ko ah. weesal. kon day mel ni